parce que Sa Thiès nee nga ku daanu soxla woko waw bo boo waw ndax tay ji bo déggee ma la ku daanu soxla woo manam man duma tan Elton di retourner di jël ay ñeneen waaw ah. palmarès suite avec frappe hmm. wa awuma ko mais mais tour bi ma am amuko waw tour bi ma am Sa kess amuko ko fi ma àgg si làmb ko fa waaw ah, lima jël jël ko non du raw du question raw nit ki maanaam da ngay boo daanee da ngay dem si kanam doo xool li nekk sa si sa kanam rek nga xool waaw man nag dama daan sama kanam rek laay xool. soxla ma ko waaw. Gris 2 lu tax nga bañ ko. Gris bu ma koy soxla waa Fass dañ kaa bañ loo kon duñ bàyyi ba tey jii nekk si benn niveau si làmb ñu koy soxlawaat kon man bu ma ko jëlee man man kon aw may aw may saf. Mm. non bu Gris 2 si làmb ji moom kese ma xam ne ko rërëg day bàyyi bëre du bëre moom. Mm. waaw. sa fu ma teg sama bët ah roi rek laa laa bëgg a doon de si kattanu sunu borom foofu laa teg sama bët te si kattanu suñu borom dinaa ko doon te lu ma gëm la lu nekk si man man à part wàllam saar kun ma fi jot damay bëri ak moom. Modou Lo buñ la ko joxoon da ngay moom. xanaa déggoo ma à part waa wàllam saar laa la wax. Mhm. waaw mais ne yaa ngi Modou Lo pourtant ay relation yi na moo dox seen diggante. non non relation amu fa ma ak Modou Lo ndax tey jii. ku deeg sa bàmmeel beneen nañ nañ ma nañ laa ma laa ko mës a gis ci kër Yékini lañ ko gisee ñu nuyante noonu jéena ku ne jàpp sa kuul. Mhm. kon adversaire la. ah bien sûr. Mhm. nañu liggéey fawantewuñu. Mhm. yow noo gisee li xew léegi ci làmb ji ay diw ak diw du ma bëreeg ñoom affaire yooyu. gisoo ne man man daal wut dëgg yàlla nag man yooyu moom sama yoon ne man moom boo may laaj danga may laaj ci man ndax ci man. si man laa la mën a wax mënuma laa wax si keneen man moom damay liggéey waaw.